bon nous commencer ici présentation Khari. yi commencer ici le champion phénomène le phénomène de Mermoz donc phénomène judo judo juddoo sans sang bu yéeme boo xam ne wax dëgg yàlla man ci laa bëgg liggéey sama base muy boy-serrer. bon si côté papam Baye Peul est papam Baye le géniteur hors norme Baye Peul di doomu Kaskas Kaskas di doomu serrer, cascas Kaskas di doomu serrer booy séeréer yan sang la bokk si doomu jibi la jibi doomu góor gi donc mu nekk sang bu wóor wax dëgg yàlla côté yaayam euh, d'après waa ji ma jox euh, jeune mâle bi muy Zal yaay ji surtout Tidiane la te moom aussi papa ji am na sangu laal na si sangu Tidiane bi si côté euh, maam maam bu jigéen donc bu ñu jógee si moom dañuy ñëw si dëggeen dëggeen moom wax dëgg yàlla borom esthétique bu rafet bi dëggeen Farba moo ko jur far Farba Algoor ko jur algor Birahim Birahim Tyson donc wax dëgg yàlla mu nekk sang bu wóor wax dëgg yàlla xam nga tey famille bu nekk sëtu Algoor direct donc nekk na qualité génétique boo xam ne mën nga ci liggéey lu bari yaay ji aussi sëtu Birahim la. famille bi mu ngi jógee si Mambay Kaas ba Mambay Kaas ba mu ngi ko jëloon si sama xarit sama doomu nday Abdoulaye Diop di ko remercier au passage donc buñ ñu jógee si Clara dañuy ñëw si Mami Fall Mami Fall surtout petit kiifa la benn doom petit kiifa bu nekkoon Louga petit kiifa bu Abdou Koli bu nekkoon Louga moo ko jur. moo ko jur ñu ngi ko jëloon si ku tudd Moustapha Mbow sama xarit bu baax sama tonton bu baax di cousin bu vieux sey moom ma joxoon moom am naa ci ñaari doom wax dëgg yàlla moo jur euh, euh, Jamila mi Jamila di doomu Baye Paul aussi Baye Paul surtout booy séeréer donc Mami Fall premier pote bi am mu ngi mu ngi nale si ginnaaw moom mu ngi ko am ak ak euh, Aziz bu Badiane Aziz bu Badiane surtout damel la woon surtout damel la woon ñu boole ko Mami Fall di surtout petit kii fa ñu génnee famille bu rafet bi wax dëgg yàlla am mensuration mën na yaakaar naa ne bu defee première portée dana toll nii yaay ji wax dëgg yàlla à huit mois nga toll nii moo nekk na lay borom corne yi vraiment macha allah wax dëgg yàlla pour wane ne Manifal mu ngi commencé def ay production yu rafet fii ñaari portée rek laa amagum si moom wax dëgg yàlla moom nag laa bëgg mu nekk base su femelle bi nii Aïcha nekkee base su femelle Galoya